kun yëpp représenté nañ leen Malick wax na ko léegi lii mooy esprit ànd lii mooy esprit ànd lii mooy esprit ànd ñuy nuyu Moustapha Guirassy mënoon na wax aussi ñuy nuyu le professeur Daat may nuyu aussi sama cousin Khalifa sàll mu def lu rafet loo xam ni yëfu kuy boole la kon nag damay wax toujours bu ma ko waxee nag dañuy defoon ne dafa am ku ko moom waaye loo def mu rafet boo ko defuloon dafay ñaaw te suñu toogaayu tey bii rafet na lool ah ki nga xam ne nag mooy Ousmane Sonko meeram yu bari ñu ngi ci saal bi. waaye li ji def dafa symbolique maanaam ji bi wane na ne affaire Ousmane affaire famille la ndaxte moom mooy nijaayam mais moom moo yore protocole te image yu ji bi dafa niroog Ousmane ba nga xam ni fu mu nekkul bu fa ji bi nekkee xam nañ ni mu nga fa kon tey mu xëy wax na dëgg depuis huit heures trente mu ngi fi. Ousmane jël protocole am jël sécurité man jëluma benn sécurité sécurité Ousmane moo nekk ci salle bi yépp protocole am moo ma jël si te jibi wax na ko ñun ñëpp ñi nekk fii ak Khalifa Sall ak ñëpp jibi mooy mooy décidé journaliste yi bu ñuy ñëw ci yeewi askan wi jibi la ñuy waxal parce que xam nañ ni ñun dañoo yaroo suñu sago moo tax jibi la ñuy waxal kon jibi jërëjëf nuyul ñu usman legi gewal bi neena say mama dajalo won tal seen bop ñun yaakar na ne président Macky Sall def nañu ay injustice yo xam su fekkone ni xaru dagan na dinañ tal suñu bop waye nak ñu ngi xex te xex bi li ci des baretul kon nak nañ and rek man fi mu nek man mi seen jigen ngeen jàppe ma noonu parce que lolu mo tax

nga xam ni takku def li la war mooy mouvement am ah Adja Ndeye Mbodj tey ci suba de bi ma lay tàllal sama loxo dama ne la bu ma sañoon de naa dugg aram soxna ma ca Bangoy dootoo dem Atlanta propriétaire nga fa nag am nga fa sa résidence waaye bu doon sama sago suñu ñaari néeg yi dañuy jàkkaarloo rek bu ma xëyee nga ñaanal ma waaye nag xam naa ni foo nekk yaa ngi may ñaanal ndax gisatuma Aminata Sarr waaye nag yow yaa ngi fi te mate nga ko maa ngi lay gërëm bu baax a baax di jël nag nuyoo bi nga xam ne moom laay nuyoo sa yeneen sœur ku mel ni Caba Mbay dafa sonn xam naa moo tax waxul ndaxte Caba dafa fanaane di xool parce que waa Kousanaar bi ñuy ñëw dañu paan moo accueillir waa Goudiri moo accueillir waa Vélingara moo accueillir waa Waalo c'est-à-dire région périphérique yi yëpp dañu fanaan si te moom moo leen accueillir héberger leen jox leen ñu reer ñu xëy mu defaral leen ndékki kon nag délégation yëpp a ngi koy gërëm ñu ngi gërëm aji géey li ko tënk xam nañ ko aji géey aji géey bi muy lancé campagne dans la di wax une femme au palais c'est maintenant booba sama xel nekkul ci candidaté mu gëm ko nag di gërëm ay ay sata amal si lay mbóoj moom it bi muy xalaat ànd ak Aïda Mbodj fal Aïda Mbodj en 2024 di commencé ko Paris Grigny ñu ni femme 2024 booba xalaatuma ko woon donc waxna naa Cheikh nya takku def lila la war ko du ñu ñung koy nuyu Mbodj sengane jogop Faramay Sango yu ñu lay nuyu gis nañ wa fatik lan mo tax duñu présenter délégation fatik way Matam a ngi fi délégation fatik nga ngi fi te ñoyu dañ ne won ay titre foncier lañ ñoo ñoo ngi ànd saxal liggéey gasi gasi jeex na ñoo ñoo ngi ànd saxal liggéey kon ñooñu dañ leen di présenter may nuyu nag buur joñik buur buur dey lu jin njaagate yow yaay njaag ndax yow xam nga ni Kumba Njaay Mbañik mi ñu bokk te bala maa ñëw ci waa njag mbaa mbóoj ma ciy ràññee porte parole bi di Cheikh Fall Baye góor di ci ràññee suñu président Pape Sidi Mbodj ah waaye mënuma bañ a tudd Ibrahima Ibrahima Mbodj Njang Ibrahima Yacine fi la nekk démb ba gée jot ndax dafa dëkk fii mooy délégué de quartier wu Sicap Foire te mbokk rekk ko yëkkati parce que ku nekk xam na ni politiqueul waaye nag li ma bokk ak ñoom laa bokk ak yow buur parce que ku ma jaay mbañik moo jur Samboj Kumba Njaay di sa maam mu dem Saalum